أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تاتي لنا بزفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي نيغ لين دي نويو بو باخ كين كو نيك سي تروم اك جيمو خمنا نين بال متاي بات بي نيمي خاو مين دا ما خاو سوج موتاخ الو نيو بارتاجي اكران بي نيو ان شاء الله yaakaarna semaine passée dañoo amoon exercice bu ma leen joxoon euh Moussa yaa ngi fi wala wala mbokk yi ku fi nekk bu fekkee yaa ngi gis écran bi ngeen def ma signe Moussa yaa ngi may dégg wala wala Lamine kan moo fi nekk ci mbokk yi Maat yaa ngi fi. salaamaaleykum yaa Seydi. salaam Seydi na ngeen def. amul solo amul solo semaine passée dafa mel dañu dañoo amoon exercice de. déedéet amuñu woon exercice de. ah bon. déedéet. d' accord man jàpp naa ne joxoon naa leen exercice bi de. kayfa kayfa كيف كيف يعرف كيف يعرف ضبط الراوي أك ما ak ma أك ما حكم رواية المختلط ولا جوت مالين كون jox kon dama ko fàttee donc ngeen jël ko pour semaine prochaine incha allah incha allah incha allah incha allah alors mën nañu mën nañu commencer incha allah yéen a ngi gis écran bi donc suñu cour tay bi dafay nekk ci al alkalaamu ala al adala wax ci lu aju ci walu adala semaine passée jangon nañu lu aju ci walu dabt ak ikhtilat ginaaw bi ñu jàngee dabt ba pare ikhtilat lañ jàng donc tay dañuy jàng al adalatu alors al adala moom tamit benn pàcc la boo xamante ne ni dafay am ci mustalahu hadis en tant que tel waaye tamit dafay am ci ilmu ilmu jarxi wa taadil parce que ci wàllu al jarxi wa taadil danañ ci ci wàllu al jarxi wa taadil danañ jam nit ngir adaalaam donc ñaari fànn yëpp dañuy jàngale al adaalatu alors adaala comme niñ ko comme niñ ko définiré woon ci muzakira bi ñu doon jàng ci wàllu mustala moom mooy capacité boo xamante ne ni nit ki dana ko am ci mën a taqoo ragal yàlla ak jikko yu rafet waaye tamit moytu wala wottandiku wala teet lépp loo xamante ne ay jëf yu ñaaw la ak bokkaale ak loo xamante ne dafay nekk fisq bu ñu waxee al fisq nag mooy kuy mooy yàlla te du ko nëbb maanaam ku làmboo ay jikko yu ñaaw ba pare di ko fësal ولا بدعة من لولو مموي ديفينيسيون عدالة كو خامتاني ني موتشو نتي لولو الملكة التي تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة واجتناب أعمال السيئة من الشرك أو الفسق أو بدعة ولا من شرك أو فسق أو بدعة دونك كاباسيتي بوي نيت كي دي ام تي مانا تيت يي ني مموي على عدالة nga déggee ci ne kon bu nit ki lamboowee jikko yi ni moom la ñuy tuddee ala aadilu d'accord waxoon naa leen semaine passée que ne <clears throat> al adala ça n'a rien à voir ak dabt maanaam euh, adala mën nga koo tuddee honorabilité honorabilité amul benn rapport ak fiabilité nit ki mën na nekk ku honorable gën a baax ci dëkk bi te du fiable ci xam-xamam comme ni ma leen ko yàgg a waxee nit ki mën na nekk ku fiable te du am benn honorabilité ci ay jikko yu baax <clears throat> alors li ñu intéressé fii nag mooy premièrement maanaam bu ñu waxee lu ñuy saxalee nit ki ci muccam ci bokkaale yàlla wa xulaasatu yu yuhimmuna fi fi raawi min xaysu subuuti adaalatihi iddatu umur bi ci njëkk mooy salaamatuhu min ashirk ñu saxal ne nit ki nekkul bokkaale nga déggee ci ne ci règle boroom xam-xamu xadiis yi ñoom du ñu jël xadiisu ku ñu tuddee bokkaale kat alors bokkaale dafa bëri ay catégorie am na bu mag am na bu diggu doomu am na bu ndaw bokkaale bu mag bi mooy nit koo xamante ne ni dafa am xërëm bu muy jaamu wala yàlla wala ku gëm trinity wala yu mel noonu maanaam façon nit kuy diine woo beneen diine boo xamante ni dañuy jaamu yeneen idole wala yeneen divinité yu bokkut ak tawxiid loolu mooy bokkaale bu mag bi bokkaale boobu nag moom la yàlla di wax ci alxuraan ne inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha loolu mooy premièrement am na bokkaale bu diggu doomu bokkaale bu diggu doomu mooy nit koo xamante ne nii gëm na yàlla waaye gëm na ne am na leneen tamit euh, lu muy mën a booleeg yàlla cest yàlla ak leneen kee moom bokkaale bu mag bi moom gëmul sax yàlla ko reconnaîtreul existence yàlla moom leneen mooy divinité kii nag moom gëm na yàlla ba pare boole ko leneen am na bokkaale bu ndaw boo xamante ne léeg-léeg jullit bi sax mën na cee bi mooy euh, gëm ne am na kuy def am na kuy dindi ku dul suñu borom wala am na luy def am na luy dindi lu dul suñu borom bon léeg-léeg nga gis suñu mbokk yi ci lislaam salafiste yi di ci yaatal ba ci tuumaal nit ki lu mu def ñu ne ko bokkaale la boo waatee sa sëriñ ñu ne la bokkaale nga boo defee nangam ñu ne la bokkaale nga wala boo demee ci bàmmeel di ziyaara def nangam ñu ne la bokkaale nga en réalité am na yoo xamante ne ñoom dañ ciy dugal dañ koy dugal ci bokkaale te wax dëgg yàlla amu fa place bokkul ci bokkaale da ngay dégg sax ñuy am légèreté wu bu gisee ni takk téere wala sangoo saafara wala naan saafara ñu ne ko bokkaale na te fekk ça n'a aucun ça n'a aucun lien ak bokkaale yàlla aucun lien donc mbir mi yëpp mbirum xol la mbirum la moo ci jiitu après nag jëf yi mën na ko confirmer wala mu infirmer ko mu ne fa innahu in kaana mawsuufan bi shirki awil il kufri aw kaana yadiinu bi gayri islaam fala xujjata bi xadiisihi albatta maanaam bu fekkee ne nit ki dafay nekk bokkaalekat wala mu nekk yéeféer wala mu nekk kuy diine beneen diine bu dul islaam mu ne kooku du ñu sukkandikoo xadiisam de façon catégorique donc nga déggee ci ne science u xadis science la bu restreindre source bi muy jëlee tey jii benn euh, William wala benn Jean John John John wala benn Jean Paul wala benn Jean Pierre wala benn Élisabeth exemple juste ay exemple de nom lu mu am am fiabilité lu mu am am honorabilité tant que nekkul julit bu waxee hadith duñ ko jël bon bu dee ci xadisu yonentu la mën nañu comprendre loolu parce que dañuy wax ne il se peut que bañ yonentu bi tax mu sosal ko leneen mais mais est-ce que duñu xalaat itam que ne il se peut il se peut que kooku ñëw dugg ci l'islam pour ses intérêts crypto personnels wala les intérêts de son clan wala de son parti wala pour x raison mu mën a sosal yonentu bi tamit est-ce que duñu xalaat loolu ne mën naa nekk sànq rek balaa cours bi maa ngi ci am benn mbokk ci daara ji fii ku ma ci doon waxtaanal maanaam nit koo xamante ne nii dafa am benn parti bu mu far ci wuute yi am ci lislaam wala dafa am ay nit ñu muy vénérer ci lislaam ñu bokkut ak ñeneen maanaam est-ce que duñu xalaat ne pour x raison kooku mën na inventer leneen pour valoriser ñooñu crédibiliser leen euh, jox leen benn mérite wala benn notoriété bu ñu amul est-ce que duñu xalaat loolu. man jàpp naa ne xam-xam bokk na ci lu koy dundal mooy émettre des doutes ba pare itamit def ay euh, question di questionner lu nekk parce que boo ne tey jii benn mushrik bu xam ne bokkaalekatu yàlla la bu waxee xadis duñ ko jël mais l'inverse aussi est possible jullit itam boo xam ne gëm na yàlla mën na wax xadis te fekk du dëgg bu fekkee da nga dugal probabilité wu ne jullit moom du fenn waaye waaye mushrik dafay fenn loolu on sait que xel du ko nangu maanaam ki dàq fenn ci kaw suuf mbokk ma doon wax ak sànq loolu la ma wax ki dàq fen ci kaw suuf mën na jom fenal yonent bi quand il s'agit du prophète alors que buy wax ci la waxam tey ak suba mën naa fen ki dàq wax dëgg ci kaw suuf mën naa yéeg ci kaw minbar wala ñu toog ci plateau wala ñu tàllal ko micro pour x raison mu wax lu dul dëgg pour défendre ses intérêts wala protéger quelque chose wala def nangam ak nangam il faut il faut euh, ñun aussi suñuy jàng léeg-léeg ñuy émettre yenn doute yooyu ci suñu kii ak yenn questionnement yooyu noonu ça nous permet de mieux avoir de rigueur intellectuelle voilà c'est-à-dire euh, bu fekkee da nga ne nit ki athée la wala nit ki mushrik la wala nit ki yéeféer la kon bu waxee xadis duñ ko jël battatan bu seedee duñ ko jël maanaam yaa ngi dugg ci benn sectarisme boo xamante ne je sais pas si le mot est bon mais benn sectarisme boo xamante ne tu t'enfermes sur quelque chose ku dul yow ku bokkul ci yow doo jël waxam doo jël mbiram doo ko considérer et est-ce que est-ce que c'est juste une question est-ce que loolu taxul tay jii suñu doomu bàjjen yi di sol seen tubay rakk yi par exemple bu ñu xasee qualifié kat étiqueté nit ki ne nitu bidaa la wala kat la selon ñoom maanaam lu mu wax laa mahalla lahu min al i'rab lu mu wax duñ ko laa yuqimuna lahu waznan

sa confrérie, yi lu ñu nekk moom moo gën mbooleem lu confrérie yi yeneen confrère yi nekk ku dugg ci sa confrérie yi mucc na ku nekku ci sa confrérie alaku na c'est fini pour lui et vice versa keneen ki tamit di gisee noonu keneen di gisee noonu donc finalement lan lay jur lan lay jur mooy tax si buhum jamian wa xulubuhum shatta da ngay gis nit ñi foog ne ñoom ils sont unis ils sont ils s'aiment entre eux alors que seen xol yi c'est juste pour ngeen xalaat tuuti est-ce que est-ce que est-ce que loolu jurul lii maanaam cause yii nii ñu jàngale ci règle xadis yi nii est-ce que duwul moom moo indi conséquences yi ñuy dund tey chia bi di tiiree fële sunnit bi di tiiree fii salafiste bi fële wahabite bi fële sufiyanke bi fii ci biir sufiyanke yi ñii fii ñii fii ci biir salafiste yi ibaadu yi fële waa daarul istiqaama fële waa jamaatu daawa wa tabliq fële ku nekk di tiire jëmale jëmale sa boor jëmale sa boor est-ce que duur ne règle yi nit ñi tëraloon depuis la nuit des temps moom moo indi lii nii tey ci biir mazahib yi tamit xanafi bi diine yi shafii bi nale ah nu xanbali bi nale ku nekk ku nekk كل حزب بما لديهم فرحون farixuun man gëm naa ne lii nag sama gëm-gëm la mën na bañ a engagé ñëpp gëm naa ne ku nekkul jullit sax léeg-léeg léeg-léeg laa wax mën na gën a dëggu ba pare gën a fegu ci sosal yonent bi que ku nekk jullit pour x raison parce que nekk julit dafa bëri façon abdoulaye ibnu Ubay ibnu Salul julit la woon te pourtant naa feq la ak mbooloo mi àndal nag moom Musaylamatul Kasab à un moment julit la woon muy donc il faut relativiser souvent benn sectarisme bi amul solo amul en fait yow li nga nekk rek moo baax sa communauté li wax rek mooy dëgg seen wax rek la ñuy con la considérer ñoom rek la jël comme témoin keneen ku dul yow nangam keneen ku nekkul julit nangam ku nekk maanaam dem sax ba ci discussion bi fi amoon année euh, année bee ñu génn wala ay ñu vous voyez un peu. hiérarchie bi ni mu demee dema dema dema dem ba ku nekkul jullit aljana amu fa place yërmande yàlla amu ci place ñaanal ko amu ci place <coughs> alors mu ne falaa xujjata bi xadisihi albatta wa yandariju taxta haza sinf man nusiba ila bidaatin mukaffiratin tunqira alil milla mu ne ويندرج تحت هذا تحت هذا هذا الصنف دا ندوغ سي خاج بي خاج بان موي خاج بيغا خامتيني دونو جيل سين حديث دونكو ارغومونتي موني دا بوكو سي خاج بوبو تاميت نيغا خامتيني ني داني لين دي اسكان سي بيدا بو خامتيني دا فاي ييفير لو نيت بوي генي نيت سي ميدل الاسلام بي نين بال ما يالا باسكو كوم كوم جي فولو دي طول تام مان جابنا لي موي دغ دغ انتريو جانغ سي مانام جانغ اك مان man duma len liiral li téere bi bind rek yam fofu je vous donne mon je vous donne mes analyses voilà premièrement <clears throat> lan moy bida buy génnee nit ci diine ngeen bal ma wax li man la engagé ak kuma ci gëm kuma ci gëmul engagé wu maanaam wax ne am na bidaa buy génnee nit ci diine sax bidaa la ci bidaa yi am ci diine ji xaw ma ndax dégg ngeen li ma bëgg a wax wax ne am na biddaa buy génnee nit ci diine biddaa buy yéefeegloo nit loolu sax bidaa la ci biir biddaa yi teg règle boobu ci boppam sax bidaa la ci bidaa yi parce que yonent bi sallallahu alayhi wa dund na ba génn àdduna mësul takfir nit ngir benn bidaa bu mu def mësul am yonent bi dund na ba génn àdduna mësul indexé nit ne ko yow nitu bidaa nga amul ku am xadis bi na ko indi ku ko indi tay tay ma dagg sama kurus tarixu tijaan tay tay tay tay yonent bi fu mu mës a joxanee nit ne ko yow nitu bi daa nga mubtadee nga kon ndeke ginnaaw yonent bi jël affaire yi catégoriser ko nii classé ñii nitu bidaa ñii nitu sunna bidaa la ci bidaa loolu tamit loolu mooy bidaa bi gën a rëy ci bidaa yi loolu mooy benn ñaareel bi mooy xaaj bi egganale eggale na leen ci odaasu ne am na bidaa buy génnee ni ci diine am na bidaa bu dul génnee ni ci diine maanaam yow yokkal nga yonent bi ak yàlla beneen ponk bu bokkut ak di yàlla ak yonent bi indi yàlla ak yonentam ñoom wax nañ lan mooy dugal nit ci diine wax nañ lan mooy génnee ni ci diine lan mooy dugal nit ci diine mooy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah ba pare gëm ko lan moo ciy génnee ni mooy weddi loolu yow nga ñëw ne déedéet am na sax ay bidaa yuy génnee ni ci diine ji yow si tey ji président de la république ñëw ne forces armées Sénégal yi ñetti force la mooy armée de l'air armée de terre ak la marine c'est fini maanaam décret yi mu jël ak ordonnance yi consti ak euh, article yi constitution bi consacré Sénégal ñetti ñetti force la seen branche armée Les am léegi benn caporal ñëw wala benn sous-officier ñëw ne moom yokku na ci yeneen sous kii maanaam lu tudd armée de l'espace armée des moustiques armée chargée des animaux ak yu kenn xamul te pourtant constitution Sénégal moom ñetti branches reconnaître c'est juste un exemple mais pour vous dire pour vous dire yalla ak yonentam ñom wax nañu li nga xamantene ne génné ni ci amul fenn fu yalla wala yonent bi waxee ne am na buy ci amul yow nga uyo yok ci luy génné ni ci bida ne am na bidaa mu kaffira am na bidaa xayru mu kaffira kon sa règle boobu nga indi tamit bidaa la ci bidaa mooy ne légiféré nga lu yàlla ak yonent bi légiféré wul et intilaqan intilaqan min zalik maanaam en basant sur cela dem ba ciy jël xadiisu nit ak di ci delloo xadiis nit maanaam am na ñu bëri ñu ñu bañ a jël seen xadiis sous prétexte que ay nitu bidaa lañu te yàlla xam na ni ñoo gën a dëggu ñu ñuy tuddee nitu sunna kon vous que dañu wàcc yoonu yàlla ak yonentam bu yàgg nekk ci leneen maanaam wàcc nañ tali bi ñu ngi ci rang-rang bi di dem xaw ma ci lu kenn xamul xaaj nañ nit ñi diviser nañ nit ñi def nañ nangam def nañ nangam indi nañ ay règle indi nañ ay nangam ba nga xamante ne tey jii le musulman lambda dans sa tête y a énormément énormément énormément de chose inutiles yoo xamante ne daf koy soril yàlla ak yonentam daf koy soril message yàlla bi ak yonent bi parenthèse, parenthèses semaine passée dafa am benn live bu def Facebook la TikTok ma ci doon wax ci euh, jigéen dafa am yaakaar pen voile ndax obligation la ci jigéen ci diine. ne ko d'après li xam c'est une recommandation et non une obligation alors mu am ay nit ñoo xamante ni ñu ci maanaam dem ba di ma taxé ci yenn affaire yi tout simplement parce que nee naa selon man muuraay recommandation la waaye du obligation mais problème bi mooy ñoom ñi lay wax loolu duñ la indil fu yàlla waxee ne muuraay obligatoire la duñ la ko indil duñ la indil fu yonentu waxee ne muuraay obligatoire maanaam liñ lay indil yëpp waxu diw ak doomi diw ak doomi diw la te yow nga nekk diw doomi diw comme ñoom ñoom ñi lay saaga sax nekk diw doomi diw ñoom tamit maanaam ay tur kese lañ lay tuddal sëriñ diw wax na imaam diw wax na ustaas diw wax na xaafis diw wax na allaama diw wax na duñ la indil mukk fu yàlla waxee ni c'est une obligation ñu dem wax ji yóbbu ñu ba ci ba ci ba ci ba ci greffage ak euh, kii ak euh, perruque ak euh, yokk karaw yooyu maanaam mèche mu indil ma benn xadis wala benn asak bu ñu wax ne Abdullah ibnu Mas'ud moo wax ne yàlla rëbb na wala yonent bi rëbb na ku yokk lu karaw la ana la ana rasulullah wala la ana allahu alwasila wal mustawsila xadis boobu d' abord ma ne ko ma ne ko xadis bi wérul bon bëgguma faa nekk di def di palabrer ak moom trop parce que xam naa ne subtilité yi ma xam ci xadis wax dëgg yàlla xamu ko je suis vraiment désolé mais xamu ko donc su ma fa duggoon ak moom tamit daf koy sonal mais dama ko ne xadis bi wérul benn ñaareel bi ma ne ko xadis bi lan la wax mu ne ma kuy yokku karaw ma ne ko yonent bi ci ban environnement la nekkoon d'abord ma ne ko n'est-ce bi ay arab la doon dund ak ñi mu nekkaloon ñëpp ay arab la ñu ci ëpp ma ne ko arab yi seen nature mooy seen nature mooy dañuy gudd karaw ma ne ko jigéeni arab bu gudd karaw ba pare ndax dina soxla di yokk karaw kon wax jooju ñu ne yonent bi wax na leen ko maanaam amu fa place mu ngi leen di wax loo xamante ne seen société sax xamuñu ko yokk yokk karaw araab yi xamuñu ko parce que seen karaw yi dafa gudd naturellement ba pare kon mu ne tekk di ma déglu ma ne ko am na yenn xadis yoo xam ne wala yenn wax yoo xam ne soo ko déggee contexte bi kiy wax nekkoon rek moo lay xamal ne wax ji saa a été fabriqué bien après existé wul mu ngi mel ni ma ne ko mu ngi mel ni tey jii yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ne la képp kuy utiliser iPhone nangam ak nangam ak nangam yow leer na la iPhone amul woon jamono jamono yonent bi leer na la donc automatiquement da ngay xam ne wax ji wérul soxla woo di chercher de midi à mané ko arab yi aslan xamul won ay yok karaw parce que sen karaw yi dafa gudd ba pare kun yonent bi du ci sax bina nan ay yalla rëbb na kuy yokk karaw nangam mané ko ne serait-ce que pour ça di nga xam ne bi ça a été fabriqué bien après datation hadith bi di nga xam c'est venu bien après mu ne ma léegi lu tax askan ko Abdullah ibn Mas'ud mané ko lolu benen wax ju yaatu la joo xamante yow sa xam-xam wax deug yalla nga baal ma mais yegut fa suma ma fa duggee ak yow dama lay ennuyé rek mais man xam naa lu tax ñu askan ko ak kan moko askan donc on a créé des choses yoo xamante ne yàlla waxu ko yonent bi waxu ko on a créé des règles yoo xamante ne tax nañu génnee ñeen nañu ci diina ji écarté ñeen nañu dugal ñu leen neex génnee ñu leen neex favoriser ñu leen neex descendre ñu abaisser ñu leen neex te yàlla waxul yonent bi waxul et avec tout cela on se taxe d'être les enfants aimés de Dieu ahlu sunnati wal jamaa loolu bu fekkee ci biir l'islam la et en dehors de l'islam, on se taxe d'être la religion la plus, la, la, plus équilibrée, la, religion la plus juste. On ne l'islam nest diine bu juste ah, mais jullit ñi laa wax y a une différence entre l'islam et les musulmans Madame, les musulmans d'aujourd'hui la plupart d'entre nous, c'est un yi arrogance bi n'est que par rapport à l'humanité, c'est autre chose loolu rek loolu rek mën naa tax yàlla jéppi ñu def di teg jullit ñi jàpp ne kuy nooyi ci kaw suuf ñoo la surpassé ñoo la nangam ñoo la nangam maanaam humanisme sax dafa jeex ci ñoom et ils s'attardent c'est des kii qui s'attardent sur ndax booy julli da ngaa war a teg sa loxo ci sa dënn wala da nga war a yor ndax sa tubéy ji dafa war a cëkk wala dafa war a gudd sa sikkim bi dafa war a sëq wala da ko war a wat ndax booy taayee da war a yëngal sa baaraam wala da ko war a taxawal pire que sax dañuy dem ba yegg ci ndax bu ñu iqaamaa ba pare maanaam booy liqaam di julli allahu akbar allahu akbar

ثانيا نيارل بي دونك مون وين دري جو تحت هذا الصنف من سن من نسب الى بدعه مكفره وحنا لان لي موم واخ دغ يالا اي واخ تياخان رك مانام بو ني اوبي بونتو بي بن ابلاي نجاي بو مو نيه مو خول شيخ باي ولا مو خول موسى ولا لامين ولا ديو نكو يو نيتو بي داغا دوما جيل سا حديث بو ني اوبي بونتو بي موم بوبا ارمي مكسيكين لاي دون كوم نيه تاكسي كولا نيه لولا نيه دالا voilà. saniyen ñaareel bi mooy iltifaau jahalati aynihi wa kazalika jahalati haalihi maanaam ñu teggi wala nit ki bum nekk majhulul ayni naka noonu bum nekk majhulul xaal jotoon nañoo définir lan mooy majhulul ayni ak lan mooy majhulul xaal soxla wuñ ñu ci ñu ci dellu siwaat mën ngeen a dellu ci cour yu weesu woon incha allah <coughs> donc irtifa mooy mu dañ maanaam majhulul jahalatul xaal dañ ci moom ak jahalatul ayni mu ne fa inna majhulal ayni huwa voilà mu ne majhulul majhulul ayni mooy koo xamante ne nii amul kenn ku riwaaye ci moom ku kenn te amul kenn ku ko tawsiq tamit wala ku ko jar kooku dañ koy askan ci daaf shadid boo xamante ne duñu jël riwaayam فانه في حكم المبهم الذي لا يعرف كوكو داي ام اتاي مبهم بو خامتيني خامو نيو كان لا واما مجهول الحال فهذا قد عرفت عينه مجهول الحال نك موي كو خامتيني خام نانيو عينم خام نانيو جيموم خام نانكو واي نك ولا يتعرض له احد بجرح ولا تعديل امول كين كو خامتيني جرح نكو ولا متعديل كو كوك فدافه من قبيل ضعف المحتمل كوكو ضعفهم داي نيك ضعف محتمل كي نيبا كرونيك وحديثه يكتب للاعتبار حديثم دنجكوي بين غير اعتبار bon terme yi ma leen di wax yëpp je considère que je suppose que xam ngeen ko moo tax duma ci attaqué wu jàng nañ lan mooy i'tibaar jàng nañ lan mooy majhul jàng nañ lan mooy majhulul xaal jàng nañ lan mooy majhulul ayn jàng nañ lan mooy mubham donc je considère que vous vous les connaissez déjà voilà <clears throat> ñi nga xamante ne xamuñu ko comme ñi nekk ci Facebook bi wala ñi nekk ci TikTok bi vous me pardonnez le cours c'est pour pour les élèves qui sont dans al-minhaj saalisan ñetteel bi mooy سكته في الحديث وعدم اهتمامه أو وصفه بالكذب أو الوضع أو سرقة الحديث مانام راوي بي نانيك كو تي واخ نانيك كو تي واخ الحديث في واخ لاي با حديث كوم تيرمينولوجي بني اسكان يون با بري تاميت بون نيك كو ني تومال wala kuy meloo fen wala waddu mooy invention wu xadis bu ñu waxee waddu mooy inventé xadis boo xamante ne yonent bi nga koy askan kuy fenal yonent bi spécifiquement moom la ñuy wax alwadda wala alwaade ki nga xamante ne nag moom day fen de tous les jours ak ci waxam kooku al kaz al kazib lañ koy askan maanaam kazab lañ koy askan alors sariqatul xadis mooy sàcc xadis sàcc xadis yaakaar naa définir woon nañu ko lan mooy sàcc xadis ak ñan ñooy sàcc xadis mu ne fa inna al wasfa bil kazibi mimma mimma naa subut al adala maanaam képp koo xamante ne dañ koo askanee fen loolu dafay wuute maanaam dafay dàq saxub adala ci moom saxub honorabilité maanaam tey jii buñ ne la diw sàngam mi fenkat la kooku honorabilité am dàqu na dootuñu mën a fiyewu ci ay waxam waaye nag xam ngeen <clears throat> suñu gars yi ils sont dañ lay wax benn règle bu rafet mais nga dem dans les faits tu trouves le contraire jarul ma ci yaatal on en a beaucoup parlé ci Ismaïl ibn Abi Uways ak ñu mel ni moom ci Bukhari ak yeneen ak yeneen ci seeni téere yi nga xamante ne ni maanaam ils appliquent l'inverse de ce qu'ils nous ont appris ci seeni lettres ci seeni ci seeni règles <clears throat> walisa al muhtamu aw il mawsuuf kaana al muttaham aw il mawsuuf bil kazib matrukan min jihati yi mu ne loolu moo tax na képp ko xamante ne dañ koy tuumaal wala koo xamante ne dafa meloo fen kooku dafay nekk matruk ci wàllu adaalaam maanaam dañ koy délaissé du jël ay xadisam ngir son honorabilité est entachée voilà bokk na ci ñooñu ku mel ni Souleymane Ash-Shazakuni سليمان الشازكوني يقول فإنه موصوف بالحفظ وسعة الرواية كنو اسكاني ون ولا كنو ميلا لي ون موكالا بري أي رواية موي فيابيليتي إلا أنه موصوف بالكذب سوف كدن كدن أسكن فن دونك واخنا لين سانخ كني اونورابيليتي نا رينا فار افيك فيابيليتي نيت كي مننا نيك كي غنا فيابل سي كاو سوف انسيكلوبيديك واي مو نيك كو مانكي اونورابيليتي et vice versa aussi nit ki mën na nek bu encyclopédique nit ki mën na nekk ku honorable te du xam dara ci wàllu fiabilité wala xel mi lu mu jàpp fàtte ko voilà Souleymane Shazakuni ku bëri woon xam-xam la bëri ay riwaaya bëri mokkal waaye da daan fen kadalika mu ne fa huwa matrukun min qibali adalatihi la min qibali xifzihi mu ne kooku matruk la ngir son honorabilité est entaché et non sa fiabilité souvent moo tax ma leen di wax ne buñ ne xadis sàngam wérul loolu mooy jëfi borom xam-xam foofu la liggéeyu borom xam-xam yi commencé parce que d'abord il faut nga établir lan moo wéradil xadis dafa am kuñ ci jam kiñ ci jam noonu ban côté lañ ko jamee ndax dañ koo jam ci wàllu honorabilité wala ci wàllu fiabilité bu fekkee ci wàllu honorabilité la yan xeetu jam-jam la <coughs> parce que matière bu nekk moo xam muy honorabilité bi wala fiabilité bi am na catégorie de jam-jam yi ñu ci mën a jam nit et catégorie de jam-jam yi tamit bokkuñu àtte bokkuñu àtte bokkuñu degré itam bu fekkee ci wàllu honorabilité la bii ak bii ak bii lañ ko mën a jamee et bii lii mooy valeuram bii lii mooy valeur am bii lii mooy valeur am bu fekkee ci wàllu fiabilité la nangam ak nangam ak nangam lañ ko mën a jamee lii lii mooy valeur am lii mooy valeur am lii lii mooy valeur donc bu ngeen déggee nit léeg-léeg mu leen wax naan leen xadis sàngam wérul sànni leen ko nangam ak nangam kooku set de deux choses l'une soit

mu ngi mel ni xadis yooyu lay wax naan boo boo nekkee ak buur boo xamante ne maanduwul na nga muñ même bu la tooñee même ci c'est un dictateur buy dóor bu lay dóor di jël sa alal nangam ak nangam c'est des hadiths qui ont été authentifiés mais qui n'ont aucune maanaam amuñu xeetu authenticité wérul ay hadith la yoo xamante ne nii euh, dictateurs yi fi nekkoon à jamono buur yi fi nekkoon ñoom ñoo fay pour des besoins de la cause ñu inventé leen ko. c'est tout ak yeneen xadis yu mel noonu yu bare bare chaque jour nga dégg nag ñi nga xamante ne ni ay borom xam-xamu nguur lañ buñ bëggee nelawal peuple yëpp ci loolu la ñuy jaar di leen nelawal yonent bi nee na na ngeen muñ bu leen xeex ak buur bu leen nangam bu leen nangam dañ leen di nelawal rek yonent bi c'est le plus grand révolutionnaire sauf que nag suuf ko nag nit ki lépp lu muy def mën na ci ànd ak xelam ba def comme dof voilà mais toog benn doomi aadama diw doomi diw di la teg loo xamante ne nii yàlla santu la ko yonent bi sant la ko ñu naan la ñu naan la muñal boo dee dem aljanna ay waxu caaxaan la ay waxu caaxaan la moo xam muy buur moo xam muy sëriñ moo xam muy whatever maanaam même sëriñ même ki ñuy tuddee sëriñ amul droit di la teg yenn affaire yi nit yow yaay mën a goreel sa bopp nit yaay goreel sa bopp parce que li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nit ñëpp dañoo juddoo ci seeni waajur yem ñoom ñëpp manam ki sant nangam bu dee dëkk yu am sant yi la ak ki amul sant dëkk yu amul sant sant suñu côté bi lay yem dëkk yi am sant ak dëkk yi amul sant classe sociale buy nit ki di mën a toll ñun ñëpp ñoo bokk yem ci ni ñu juddoo ñoo bokk yem et nous sommes tous égaux léegi nag nit ki yaay mën a def sa bopp nit wala nga def sa bopp bàyyi ma boo defee sa bopp nit ñu jàppee la nit boo defee sa bopp bàyyi ku jot tourné nax ku jot tourné dëggaate ku jot tourné utilisé comme mouchoir bu pare la voilà ngay gis nit koo xamante ne dafay toog yow nga toog nga jàng mu jàng ngay jaamu yàlla mu jaamu yàlla nga seetlu mu seetlu mu xëy suba ñëw ne la man maay xalifa yàlla kon ñëwal nekk sama jaam par force maanaam man la yàlla yónni ci yow quoi c'est du n'importe quoi du n'importe quoi te yàlla xam na ni wallaahi jarul ay xuppaate la rek. li gën a pire ci lu ñu lay mën a def mooy jël sa tur bi yóbbu ko ci ay njabarkat ñu njabar la wala ñu sànni la korte bu ko defee ñu naan martaba bi moo ko laal fekk tus ngeen baal ma tus ay xërëm lañ la def rek voilà on se sait ku jub daal ku jub nekk ci yoon wa ñu ku ku war a ku ñu war a topp la ngir jubam moo tax li yàlla waxoon li Moussa waxoon xadir xala tabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushdan maanaam li may wax nii pour kenn bañ koo interpréter que ne man damay damaa damay wax comme li salafis yi wax man gëm naa ne topp nit ngir jubee ci njubam baax na <clears throat> man am naa ñu may topp waaye kantaan ak topp nit ngir nekk jaamam moom loolu yàlla sant ko kenn ku ko def tamit boo dee yaay perte rek topp nit say doom ñëw nar koo topp say sët ñëw nar a si topp ay sëtam say sët sëtaat ñëw nar a topp ay sët sëtaatam yàlla sant ko kenn maanaam nekk taalibe dafa am fu muy yem kenn amul kenn warul am vocation nekk taalibe ba xëy dee léeg nga dégg nit koo xamante daf naan la man sama sama bëgg-bëgg mooy nekk sa taalibe ba xëy dee àllaaxira ma xëy nekk samay taalibe yow amoo bëgg-bëgg ci àdduna sëriñ dangay ànd ak moom pour da nga nekk taalibe pour mu def la sëriñ maanaam mu def la dara sagam professeur bi nekk école ngay ànd ak moom bi nga xamulee dara nga nekk élève mu instruire la ba nga xam dara am diplôme génn ci promotion pour mën a am dara naka ci sëriñ kon sëriñ daf laa war a mën a jëlee point A pour yóbbu la point B mais bu dee yow sa vocation ci sëriñ mooy nga nekk dund ci taalibe dee ci taalibe say doom ñëw dund ci taalibe dee ci taalibe mooy ne pertement am na à la fois yow jaam nga sëriñ bi buur la buy daggu c'est tout te loolu bàyyi ñes moo ko wax nee na bu leen jaawale ab sëriñ ak ak buur bu leen jaawale ak taalibi ak ak dag man mën naa nekk taalibi taalibi la mais awma vocation wu nekk taalibi ba dee ci ku ma ci nar ma dem ma dem defi leneen parewu ma ko parewu ma ko sama doom parewuñu ko loo looy wax waxal après affaire la mais aw ma vocation samay waay jur nekk bi man ma ñëw di nekk taalibe samay sët samay doom ñëw di nekk taalibe moom kay da may dimbale ba ma am lu mel ni yow li am wala li say am mënoo ko salaamun qawlan bi mu àndee xadir dafa am lu ko xadir jëriñ ala tabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan nangam ak nangam ba zalika suñu sëriñ si tamit gis nañ ni ñuy jëriñ seen taalibe yi àndoon ak ñoom seen taalibe yi àndoon ak ñoom ànd bu rafet ñëpp tey jii nekk nañ lu ñu xam ñëpp waaye jamono ji sëriñu deux point zéro yi moom allahul mustaan donc on continue wali ولي ولي ولذا قال الحافظ ابن صلاح قال الحافظ صالح ابن محمد من ما رأيت جسما أحفظ من الشاذكوني وكان يكذب في الحديث mu ne musumaa gis koo xamante ne moo gën a mokkal Souleymane nii moo ko dàq mokkal waaye nag da daan fen ci xadis quatrièmement salaamatu min al bidaa maanaam nit ki ñi ne na nekk ku mucc ci bidaa wax naa leen ci léegi ci waxu bidaa en baatu bidaa baatu bidaa ci boppam baatu arab la boo xamante ne ni dafa am quelques hadiths yoo xamante ne ils ont été inventés après le prophète je pèse bien mes mots je pèse bien mes mots ils ont été inventés après le prophète pour affaiblir benn camp favoriser benn camp bu ngeen xoolee seetlu leen bu baax li ma leen di wax xadis yi ñuy wax te mu baatu bidaa di ci ñëw yépp boo amee matière de recherche mën nga tàppe wala yéen ñiy def intelligence artificielle léegi tàppale ngeen xool baatu bidaa ñaata yoon la ñëw ci xadis hadith yi wax baatu bidaa di ci ñew yëpp bo xolé seen siyaq bi maanaam contexte bi hadith bi ñewé ça rapport plus ou moins avec la politique li ma leen di wax ni jang bu sori la waaye bu ngeen ko setlo di ngeen ko gis hadith bu ñuy wax baatu bidaa di ci ñew seetlu leen ko ça rapport plus ou moins avec la politique xol len siyaq bi soit bañ lay. bëgg restreindre takk sa yuur gi takk sa xel mi maanaam tegal la benn épée de damocles pour nga bañ a génn ci benn groupement war a dem rallier wu ji feneen soit dañ lay bëgg a tënk pour nga bañ a xalaat bay eewu bay laaj say droit exemple bi ci gën a siiw ñaari xadis la bi ci njëkk mooy xadisu man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun ñaarel bi mooy alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin bon mën nga ci indi ñettel moy kullu muhdathatin bidaa wa kullu bidaa dalaala wa kullu dalaala fi nar alors bo xolé ñett hadith yoy yep nga xol seeni siyaq ben bu ci nek amna rapport plus ou moins avec la politique contexte bi bu fekkee am nga niveau bu sori ci hadis di nga xam ne yonent bi lu ñu inventé la après pour am museler am am <coughs> pour plus de contrôle sur eux par exemple man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu huwa première première chose bi lay xamal loolu bokk na ci boo xoolee alxuraan ba alxuraan rek amul fenn fu yàlla di ngàññi bidaa lu ñuy tuddee bidaa amul fenn fu ko yàlla di ngàññi ci alxuraan au contraire sax am na ñoo xamante ne bon ne je suis pas en train d' encourager pour nit ñi def yu bidaa <coughs> il faut que ça soit clair <coughs> am na am na <coughs> foo xam ne sax yàlla dafay tagg ñoo xamante ne dañoo. inventé woon benn bidaa te sàmmwante wuñ ak moom exemple bi muy wax ci ñi àndoon ak yonentu yàlla isa mu ne rahmatan rafatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtadauha ma katabnaha alayhim illa ibtigaa ridwanillahi fama raawha xaqa riayatiha faatina alladina amanu minhum ajrahum wa kasiru minhum fasiqin baal leen ma ci baat bi damaa xaw a soj tey moo tax donc rafatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtadauha ibtadauha bil ayni ma katabnaha alayhim illa ibtigaa ridwanillahi dañ ko invanté woon juste pour am ngërëma ngërëmal seen borom waaye fa ma raawha xaq raayatiha donc jàpp leen li ma leen wax te bu ngeen paree ngeen def ci seen recherche su leen neexee amul fenn ci alxuraan fenn fenn fenn fu yàlla di ngàññi li ñu tuddee al bidaatu amul ku am aaya bi dama ko indi léegi quant à xadis yi ñëw ci wàllu bida yépp c'est des xadis yoo xamante ne ni ils ont été fabriqués pour des besoins d'une cause bul ma wax ne ci Buxaari la nekk wala ci muslim maa la ko gën a xam a balaa may wax wax ji damaa xam li may wax ba pare ndax xam naa ñi may déglu ak ñi ma nar a déglu ci donc bu ñu ne la asalaamatu minal bidaa ñu ne la nit ki na mucc ci bidaa léegi tey jii am na nit ñu bari ñoo xamante ne ñu ngi leen di endoctriner ci ne dañoo nekk ci bidaa wala ñu ngi leen di tiital ci ne yow ci bidaa nga nekk génnal ci loolu nga ñëw ci sunna te kooku kat dafa nekk ci benn tarixa rek parce que xamul mu bëgg ñu jàppale ko dafa bëgg a gën a baax mu jàpp wér de sëriñ diw dafa gën a bëgg a gën a baax mu dem ci sëriñ diw jébbalu ci moom yow nga ñëw suba ngoon guddeeg bëccëg li nga koy wax ci xelam mi mooy nitu bidaa la nag génn ci loolu maanaam dem nañ ba wan nit ñi ko bidaa moo gën a yées nekk yahud bidaa moo gën a yées nekk nasaraan bidaa moo gën a yées mbooleem xeetu bokkaale yàlla alors que c'est pas vrai ce n'est pas vrai mës naa kaa laaj benn salafiste bu ma doon waxtaanal mooy wax wax ci affaire ko indil ma benn aaya alquran bu langganya al bidaa al bidaatu tu. aaya ayah fi waxtaan bi mujj duma leen ko wax mais bon ala yeeti xaal legi ñu ne la képp koo xamante ne dañ ko askanee bidaa tamit duñ jël nga déggee ci ne kon comme li ma wax ci commencement bi la benn genre sectarisme la boo xamante ne nii dafa am ñuy jël seen wax comme baal leen ma ci mot bi mais c'est un c'est une mafia quoi façon règle yi ñuy teg nii genre mafia la ñii la ñuy jël seen wax ñii la ñuy considérer ñii duñ leen considérer ñii duñ leen considérer au lieu au lieu ñu teg des règles yoo xamante ne scientifiquement mooy gën a rigoureux mooy gën a rigoureuse par exemple ñu ne képp koo xamante ne xamee nañ ko jikko ju ñaaw loolu d'accord nañ ci képp koo xamante ne xamee nañ ko bañ ay moromi bañ ay moromi doomi aadamaam wala xeeb ay moromi doomi aadamaam kooku mën nañ ci d'accord képp koo xamante ne xamee nañ ko toroxal doomi aadama kooku mën nañ ci d'accord maanaam tegal ay règle yoo xamante ne alal aqalli aqalaa ni yéen nit ki dina ko mën a d'accord nga xam ne universellement ñëppay d'accord ci ne loolu baaxul waaye nit ki dafay nekk buur doomam moo ko war a wutu bu fi jugee yow leer na la leer yàlla ne buur boobu noonu na day naan sàngara wala sax góor jigéen la wala dafay rey ay nit ci tooñ dafay tëj ay nit ci kaso bi ci tooñ waaye kooku maanaam sa règle jarxu wa taadili moom du yegg ci moom il est intouchable il est intouchable <clears throat> waaye ngay ñëw ci baadoolo yi moom di leen tegal ay règles yu contraignantes yoo xamante ne ni kenn xamul fu mu jóge et lan mooy bidaa ndax man li may définir bidaa Omar Sall noonu la koy définir wala Masoud Diop noonu la koy définir wala Moussa noonu la koy définir wala Baye Anne noonu la koy définir kenn ku ne ak définition bi muy am ci bidaa qui lui est propre yow mën nga ko définir neneen lu bokkut ak man ni ma koy définir te boobaa kenn du ma condamné parce que man damaa définir à ma guise ni ma déggee bidaa yow nga définir ko à ta guise ni nga ko déggee. فإن من وصف بنوع من بنوع بدعة لم تسلم له عدالته وقد اختلف العلماء في حكم الاحتجاج بحديث المبتدع ولا مبتدعة على تفاصيل سوف يأتي إراده إن شاء الله من أبرام خم خم نكي أتو ci xadiisu wala argumenté wala sukkandikoo xadiisu nitu bidaa danañ indi yaatal gi incha allah. alors waa Facebook yi ñaata minute laa def ak ñoom je pense qu'il est temps de vous <coughs> de vous quitter on va on va se quitter incha allah pour danañ dajee ngoon bu guddi mën naa ñu def ñu def live incha allah et vous pouvez d'ailleurs suggérer les thèmes que vous voulez incha allah pour le live de ce soir waa Facebook yi ak waa waa TikTok yi merci beaucoup et merci d'être là si vous voulez vous inscrire vous fekkee da ngeen a bëgg a inscrire mën ngeen ñu envoyer message inshallah allah joxe woon nañ numéro bi semaine passée te ngeen baal ma ci ñi may yéex a tontu ci whatsapp bi mais dinaa leen tontu inshallah allah jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah